bàyyi xel trafic bi TER bi def. ok est-ce que yaa ngi koy bàyyi xel. xam nga est yaa ngi ciy bàyyi xel. yow yow da nga yem ci lu sénégalais yu bari di yem mooy li ñuy gis xam nga ñaata nit ñooy jël TER bi bis bu nekk. waaw 23000 aller 23000 retour muy 26000. ñaata la ñu waxoon muy muy 46000. muy astafirullah <laughs> astafirullah muy 46000. Mhm. ñaata la ñu ñu waxoon ne TER bi moom lay transporter par jour 115000 passagers. ñu jël mille milliards def ci mille milliards yi ma ne la at mu nekk dañ koy fay mais dañuy toppatoo perte bu toll ci quatre-vingts milliards boo xam ne dañu koy dolli ci li ñu war a fay at mu nekk ma jox la xibaar banque mondiale bi ñuy teg terre bi xam nga booy def projet banque mondiale day ñëw dugal ci xaalisam. banque mondiale bi ñuy def terre bi ci Sénégal dafa ne du ma ci dugal sama xaalis ndax du projet bu am njariñ pour Sénégal banque mondiale xëy loolu lay wax toujours ci lépp mais pourtant dugal na xaalisam ci BRT bi. ok parce que banlieue bi la ak. donc donc non li ma bëgg a expliquer mooy par exemple li ma bëgg a wax mooy. banque mondiale moom xam nga seen taxawaay. non non non non banque mondiale banque mondiale xam nga ni lépp lu jëm ci social. social waxuñu ci dara waaw dama ne. waaw banque mondiale du lépp bon. banque mondiale. bi ñuy def TER bi dañu ne duñ ci dugal seen xaalis parce que du programme bu amal njariñ askan wi dugaluñ ci seen xaalis mais bi ñuy def berte bi dugal nañ ci seen xaalis donc dama la wax sànq wax ju am solo joo bàyyiwul xel. mooy lan réew dafa mel ni kër gooy tabax